bokk yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jàmm di tuub di tuubaale fu ab jullit mën a nekk te yor pas-pas bu dëgër li ñuy dégg ci suñuy nopp mu jëm ci jëmmi suñu borom ji te ëpp suñuy nopp tolloo naag nag nopp daa amul kubéer waaye loolu benn nopp bu yàlla sàkk mënu koo dégg yàlla nañu yàlla jéggal dégg ñu ko dégg ak fas téegi ñu ko téewoon ci suñu xole ko si néew muy ñur ñuri bokk yi yàlla du ay caaxaan wax na lu bari tudd na ci ay lenn ci ay aayaat ay aayaat mooy aayay alxuraan yu bari li ma ci tudd lu néew la ci lim wax ne moom mooy kan wax ko ci alxuraanul karim ñun ñi gëm alxuraan wax na ne na nit ñi daw bàkkaar moo xam bu feeñ walla bu nëbb ndax bàkkaar bu nit def te tuubu ko ba faatu yàlla dana ko ko fay wa daru zahira al ithmi wa batinahu in alladina yaksibuuna al ithma sa yujzawna bi ma kaanu yaqtarifun bàkkaar nag ba ca gën a rëy mooy wutal suñu boroom ab nawle bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi ngi ñuy wax góor lam jigéen la mag laam ndaw yàllaa ko tontul yàllaa ko ne demal ne leen yàlla mooy kii mooy lii dane ko soo demee ci ñoom ne qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad yàlla kenn la kenn la koo xam ne du xiif du mar du nelaw waxuma laa di gëmmentu mi jëm ci nelaw du fàtte dara xam na lépp ñépp fi lañu ko fekk te ñépp fi lañuy dem bàyyi ko fi ñu ne ko ki ngay wax xamuñu ku mu doon xamaguñ ko mu ne dama leen koy wan ci seen jëmm yi ngeen gis ko ngeen gis fi fi loxoom jaar yàlla moo leen bind yéen ñépp mooy tàmbalib suratu nisaai yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha bu ngeen ne jomm nim nopp ba mën a jàkkaarloog yonent bi di ko laaj yàlla góor lam jigéen la jékki-jékki wu leen na fi cëpp yàlla mi leen bind dafa am fu mu leen jaarale laaj leen ba xam kenn ku ci nekk kuy ndeyam ak kuy baayam koo xam ndeyam ak baayam rek du yàlla mbindeefum suñu borom yàlla ko bind dellu wax ne yàlla moomu ku ab xolam def pas pas lu néew néew am na lu war digganteem ak moom bakkaar bi ma doon wax nag ba ci gën a rëy mooy wutal yàlla ndan benn la waaye ñaareel ba taxaw fee jàkkaarloog moom mu ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabudun loolu dong la ñuy doyee suñu koy jaamu amulu ko njariñ du ko tee doon yàlla suñu koy suñu ko jaamuwut waxaale wuñ loola du ko wàññi dara waaye warugar la ci noonu li tax ma jël aayaat yi ñam ko doon waxal xamaguñ woon dara ci pas-pas waaye suñ demee ba pas-pas bëgg a dellu foofee gaa yee nekkoon aayaat yi day daal di mën a dundaat ci seen kaw jaamu leen seen boroom ndax ay dàll ka ko defar ku ci bëgg a jaar danga naan ana boroom dàll yi am njaay ku ca soxla boo ñëwee fekku fa kenn danga naan ana boroom njaay mi yàlla nag mooy boroom jaam ku dul moom ab jaamam nga ñu ne ko lu tax ñu di ko jaamu mu ne waru gar la ci yéen ndax moo leen bind moom leen yéen ñii ma jàkkaar lool waaye ña ña ñu fi jiitu bu yàgg a yàgg it yàlla leen bindoon bind gën leen bindoon lu yàgg a yàgg ci la ñuy jurute ba ba jur leen yéen ñi ma jàkkaar lool ñu ne ko mu ne taxagul mu leer ci suñu bopp de mu ne suuf si ngeen di jaar di dem yàllaa ko tàllal mu mel ni ab tàppi walla basang doo dox ba yàgg ba ba yàgg nga dégg ñu ne dañ koo sëf lu diis ba mu pëtax asamaan si ne nongu ci kawit ngeen di ko gis donte loxo mënu ko laal waaye ku xool seen ko te kenn du ne may ma ma xool moo ko aj foofee mu ne noŋ te monsieur su dégg li suuf di yëngoo ko si néew sax fekk gu ci asamaan waaye bu ngeen sottee ndox ci kaw suuf si it yàlla mooy jëflante ak fepp woowee ngeen ji ba mu sax génn ba ñor ngeen jariñoo ko lépp lu ngeen amit yàllaa ko teg foofee mu nekk ngeen dox jëm ca wala nit jëlee ko fa yàlla ne dama joxal ma ko diw te du ko sañe bañ moo tax lu adduna bi xumb xumb ak lu nit ñi bari bari ak jur gi lu ñu bari bari ñéppay lekk bis bu set ba suuf kooku leen di dundal nag te léeg-léeg nit am loo xam ne xamul fu mu ko jële yàlla moo ko ko jox moo tax mu ne ci bi aay bi jeex fala tajaalu lillahi andaada bu leen sàkkal yàlla mukk moroom loolu mi ngi ci sootul baqara xanaa ku xamagutoon waaye ku xas ba xam moom bu ko defee rek xalima gi tàmbali na ko bindal yàlla noonu ci yàlla mosul mu teg ci ne yàlla mi ma leen di wax mooy ki bind asamaan soo si na nongu ca kaw ak suuf sii na tareet na tàlli ñareet dangay xool ba sa bët yam fa sa gis mën a yam ka fa toog moom it day xool ba bëtu bu yam ba nit ñëpp mat waaye tegandoo ci loxo gisandoo ko yàlla képp moo ko def moom mi nga xam ne laa taaxuduhu sinatun wala nawm moo tax mu wax ci aaya boobu ne wasia kursiyuhu samawati wal arda wala yaudu xifduhuma asamaan ak suuf li ñuy yaatu yaatu ci sab gis fi muy wax kursiyu moo leen gën a yaatu loolu nag ku xamul kursi yu dana ko jaaxal waaye ku xool ab liir fi muy nekk ci biirum ndeyam yàgg fa ba di fa wëndeeloo ko def lu nekk di fa dund di noyyi bu ree ji bu yaay ji reeyee mu ree su jeewee mu jooy su xaxataayee mu xaxataay su lekkee lu wex nga gis mu gañ ñi loolu xam-xam wane na ko su bëggee nga gis mu bëgg kooku foofu mu toll ci biirum ndeyam soo koy misaal foo xam ne oto yi dañ fay daw ak saxaar yi ak avion yi ak bato yi dana ko jaaxal waaye bu ne cëpp dana xam ne lu wér la moom la Seydina Omar radiyallahu anhu doon waxtaan ak ñu doon dugg soog a dugg ci lislaam mu jàngal leen aayab suñu borom bi nga xam ne mi ngi suratu Ali Imran saaricu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka wa jannatin arduha alsamawat wal ard uciddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi lsarai waldarai walkaadimin algaytha walcaafina an innaas ñu ne ko taxawal lu gën a yaatu asamaan ak suuf nu muy nu muy mel jàngalekat la woon mu ne leen xam ngeen guddeeg bëccëg ñu ne waaw mu ne leen bu bëccëgee fu guddi yi nekk ñu ne yàllaa ko xam mu ne bu bëccëg bu guddee fu bëccëg di nekk mu yàllaa ko xam mu ne yàllaa xam ne yàllaa xa- yàlla moo gën a xam ne asamaan moo gën a yaatu asamaan moo gën a yaatu suuf asamaan ak suuf am na àjjana su gën a mën a yaatu yàlla leen sàkk ñoom ñëpp ouvrier yii di liggéey sax dañuy defal ay modèles yu wuute bu ndaw boobu 5 boobu 10 boobu 20 boobu 40 boobu 1 mètre te kenn ki ko defar kenn kee ko defar waaye ouvrier boobu nag li muy xaral xaral ba mën a taxawal lu ñu naan 40 la wala 50 la bindut créé wut dafa inventé day jël ci li yàlla sàkk ba noppi dajale ko ba defar ci dara waaye du sax mukk ñu ne ko yàlla nga ne ko yàlla mu bind asamaan ak suuf ak li li seen diggante lii nga xam ko lii xam lii xamoo ko yàlla nee na ci suuf sajda boobu yi ku wuti feneen koo bëgg a def yàlla ku dul yàlla mi mu doon su ëllëgee da nga ko wéete ndax kookee moom day dem wuti yàlla moom ndax ba firawna jëkkee wax ne maa alimtu lakum yaa ayuha almalau maa alimtu lakum min ilahin gayri la ko seytaane doon jay jay seytaane dafa fëx bàyyi ko fi dem yoonam doyu ko loolu mi ngi ci sootul xasas doyatu ko mu ne ana rabbukum al ala fa axadahu llahu nakaal al axirata wal ula bam ne maay seen bu boroom allahu ak rabb ma min ilah ak ana rabbukum am na ak wuute maa leen moom ki leen ki ngeen di wax ne ki leen Moussa di Seydina Moussa di wax ne moo leen moom kooku maa ko moom waaw may may mooy mooy supérieur kii moom waaye seytaan na mi ko la mu ko doon jajee daane fëx daa fëx bàyyi ko fa xam ne kii yàqule na te bu ëllëgee seytaan day taxaw fee am na fu suñu borom di wax suratu ibrahima alayhi salaam fala talumuni wa luumu anfusakum ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixi inni kafartu bi ma ashraktumuni min qabl bu ëllëgee dañuy dem def ko kilifa mooy leen déet jotuuma ak yéen dara man xam naa ne yàlla mooy yàlla moom daloon na ko it ca xare bu metti boobee doxoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak noon ya falamma tara al jamaa jamaan yawma taqal jamaan seytaane fëx bàyyi leen fa ne inni ara ma la tarawun inni bariun minkum inni ara ma la taraw inni axaafu llah dama leen a nax dong dem leen ma dem man yàlla xam naa ne yàlla yàlla la yàlla noonu yàlla musal ci bopp pas-pas yàlla it moomu yonent bi doon misaal te alxuraan tudd ko doon ko wax ak ña nga xam ne xamaguñ liy pas-pas toll ci dal jàng nee na leen woon yàlla mooy ki nga xam ne mooy def bu bëccëgee doo xam fu guddi nekk day leer nañ kenn dana may ma xool nangam ci waaye su guddee pexe mu ne da nga ko def ngir soo ko gis yoon mi ngay jaar te fekk yàlla moom rekk moo xam fa bëccëg toll fi mu ne nii ak fa mu ko denc yatlubuhu xasiita kum na ci ñëwal nga daal di ñëw ca saasa sariyan waaye jant bii ak weer wi ngeen gisit moo leen ko tàggatal ba ngeen mën koo jariñoo énergie solaire am na léegi bari na subhanahu wa taala moo tax mu bàkku ne ala lahul xam xalqu wal amr ñu ne ko aha kay xanaa du moom mooy ki bind te lu dox moo ko doxal lu yëngu moo ko yëngal ñu ne ah kay tabaarakallahu rabbul alamin suñu boroom subhanahu wa taala wax nañu ci alquran te ñun ñi gëm pas-pas bi alquran di jàngale lu alquran wax suñu bakkan lañ cay teg bu dee lu ñuy dig lu ñuy digle la ku bëgg a dox suñu diggante ak moom ñaata nit ñoo jàkkaarloog seeni bokk ñiy jamante ba kay ba ñëpp faatu te défendre passeport boobu moo ko war la yàlla mi bind tey bu dee nit ñi xamoon na ne werante dana ma sa am mu wax fi nit jaar ba am fi mu ko jaarale moom ci coobareem ñii dox di dox di dox ba ay nit ñoo xam ne boo ne yàlla ñu ne àlla fatal ma di kër kër yi di dajale ci li yàlla sàkkoon ba gën na ci ay jumtuwaay yoo xam ne su nit su jigéen tollob diggante ñu ne la am na yaari weer ba mu tàmbaleeg léegi ba mu yàgg ñu ne la góor la wala jigéen la wala ñaari doom la wala jenn kenn léegi-léegi sax ñu tàndale ne la na dellu si fekk altine ba xam te yàlla léeg-léeg mu dajale ko moom ci soobareem mu doon altine ci wala mu bañ ca àgg am na ba tey waaye ñooñu seen gëstu yooyu ñu gëstu ba di ci teg loxo biñ jàngee alquran suratul xaj xam nañ ne yàlla rek mooy buur di boroom te lu mu wax dëgg la fi nit di jaar nutfa alaqa mudga ba ba muy nekk nit am na it fu mu ko wax suratul muminuun xad xalaqna al insana min nutfa fi qararin makin kooku nag ñu foto ba ne góor lay doon wala jigéen xam-xam àgg ca nangu ne li alxuraan wax noonu la demee woon te booba yonent bi ko doon wax soo ko bindalee aw këyit mën na ko bañ a jàng loolu ci kéemtaan yi gën a rëy la bokk gannaaw junni at ak nangam ñu soog a xam ne la alxuraan waxoon wér na nangu luñ ko mbuuram gi ak kattanam gi waaye ñun jullit lii xew léegi jaaxaluñu ndax alxuraan waxoon na ko bu yàgg te lu mu wax dëgg la danañ ca àgg mu ne xale ba bu juddoo am na ñoo xam ne dañuy kekku rek takku takku mooy xale jooy gi xale di jëkk a jooy am na boroom xam-xam yu ko taawil lu bari waaye foofu la ñuy yam faar am ñoo xam ne danañ am dañ dem bay jàng toog faatu am ñuy dem bay jàng ram faatu am ñuy dox faatu am ñu yónni faatu am ñu fi toog bañ naan am na téeméer at ak ñaar fu loolu lépp ci loxo suñu borom la programme na ko bu yàgg loolu su doyut nit ñi wala ñu bëgg ci sikk sàkk ba xam moom moo maanaam déet ku ne mën na koo xam bu demee këram na fakk suuf ba mu ba mu maase rek muy sotti ndox mi ba mu ba mu tooy mu suul ci ay pepp wala ay gerte wala sëpp suuf si yàlla defar bind ko ak ndoxam mi ak jiwóom bi saa bu leen nit boolee suul fab ndox def ci suuf si def ci ab doom bu amee ay fan boo fa dellusee da nga xam ne subhanahu wa taala moo fa jaar da ngay gis mu ne tàcc xar te nit bu bëggoon a xar ab xar-xarab suuf dana ëpp wala mu yées te nit dee taxaw ci kaw suuf si di xar waaye lu tàmbalee ci suuf di xar di ñëw yàllaa fa jaar àll bi fi mu ne nii soo fi demee da ngay defee ne am ñax musu fee sax waaye bu tawee taw moom rek kii man la ci kéemaan suñu borom yi la bokk am na fu mu ko tuddee rahmatullah fandur fandur ila athari rahmatillahi kayfa yuxyi al arda bada mawtiha inna dalika la muxyi al mawta buy taw taw bi li muy bari bari par wenn fepp mooy wàcc par wenn fepp te su ko doon taw ci suuf si ni baykat bu fexe ba am loxam ci ndoxam suñu borom mi ci ay pexe yàlla dimbale ko ca fenn képp lay mën a tooyal du ko mën a weesu waaye moom day taw ci kaw suuf si di taw ci kaw géej gi di taw ci kaw doj yi di kaw ci taw ci kaw garab yi fu ci nekk ak lam ca jublu ak lam fa denc ci ay mbóot moo tax bàyyee sa bopp suñu boroom te wóolu ko te gëm ko te bañ a sàkk menn pexe xool leen ci rabi àll yi soo leen di seetaan ci télévision yi da ngay yéemu ci suñu borom li ñuy ñàkk ñàkk am xel buñ amee doom danañ ko sàmm ba mën a doxi yitey boppam ñu dal koo bàyyi ak yàlla bu ñuy daw mënuñu koo fab mënuñu koo boot mënuñu koo wambat waaye dañ ko jiital muy cal ñu topp ci ginnaawam ba dogal ba agsi waaye la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon misaal ko ci jur gi dafa doon wax ci azaka ne su nit ñi ñàkkalee fayda azaka ba génneetuñ ko nañ ko war a génne jox ko ñu ko war a jox su boobaa buy taw bu nit ñi defee ne ñoo tax muy taw waaye jur gi tax muy taw bàyyi ma yi nga xam ne yàlla dong lañ yaakaar te bàyyee ko seen bopp ba léegi yu bari yoo gis ci kër gi ci ay jur am na yu niroog ñoom ci àll bi waaye yu niroog ñoom ci kër gi dong nga gis ñu jeex tàkk waaye yi ne ci àll bi yàlla yor leen ñu yem ci loxoy yàlla duñ jeex duñ loof te denc ñu dara ci ay magasin yu ñu war a lekk dañoo bàyyi yàlla seen bopp rek di def lam leen doon def loolu yàlla suñu boroom dellu wax ne gannaaw lu yëngu la ko yëngalu ko ëpp doole nag léeg-léeg nit ki di bajantu moom ci boppam taxaw ci kawab lalam di bajantu ba fépp di yëngu bañ naan kile ci kaw néeg bi cir bi kum doon ñu ñëw fekk muy moom wolof ne lu yëngu la ko yëngale ko ëpp doole kookee di yëngutu xool nañ ba tàyyi ñu gis ko toog ba yàgg di waxtaan mu faatu faatu fa mu toogoon gis ku nekk teene football faatu gis ku nekk di musique ba yàgg mu ne teg àgg suuf faatu di téléphoné faatu di seetaan télé faatu yàlla mooy yëngal mbir yu dabbirul amr moo koy waajal waxtu wa muy doon bis ba muy doon ak fa muy fekk waaja loolu nag nee na yufassilu ayaati laallakum bi liqaai rabbikum tuuqinuun daf leen koy détaayeel benn par benn lu ci ne nga gis ko teg ci sa bët ndaxte lee nga gëm ne balaa yàgg yàlla moom da nga dajeeg moom ab rendez-vous du ab rendez-vous du faussé kuñ naan la moo yàlla nag junj naa ko léegi buñ na la diw ñoom la bokkal bàyyi demal seeti yàlla du moom moo jur diw ñoom demal seeti yàlla du moom fii lañ ko denc demal seeti kanaan fan yi daa wéré di woon demal seeti kanaan ak a neexoonub gis lu ko waaye masa sori sori mu séen la xàmmee la léegi nag dañ koy takkal weer yu foor nga ñëw bu jub ko mu ne kooku nga nga ne mën a diw mu doog laa xàmmee nopp yi du neex duutu am gëññum yee allahu alladi xalaqakum min dofin summa jaala min baadi dofin quwa summa jaala min baadi quwatin dofan wa shayba yaxluqu ma yashaau wa huwa alalimu alqadir bokk yi bu ñu demee ba bàyyi ba ba nit ñi sukkandiku ci bàyyi ma di dund nag ndax bàyyi bàyyi nañ lañ nekkoon wari sana seetaat pas-pas daataat ko te bañ a fexe ba lu jóg yóbbaale la Seydina Ibrahima de bi muy xalaat suñu boroom te yàlla yónnee gu ko woon yim ko natt dañoo yomb lool te ku ne mën na ko gis yooyaa ngi fi ba léegi si day xalaat yàlla ba yàgg mu ne jàkk weer wi mu leer nañ toll nam toll mu ne xanaa kii mooy yàlla kon ne gam mu nelaw xool gisatu ko mu suux mu ne ah déedéet yàlla du fi jóge jant bi na tàyyi mu ne xanaa kii moom mooy moom kii dama ëpp kooku moo ko gën a leer xanaa moom la kon jant bi so mu ne yaa qawm inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara as-samawati wal ardi xanifa wa ma ana min al mushrikin bi mu demee ba doon rasulullah moom Seydina Ibrahima alayhi salaam lii ñii ñëpp nag muy Seydina Moussa Seydina Nuuxin Seydina Isa ak Seydina Moussa Ibrahim ñëwug yonent bi lañ doon waajal sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ibrahim buur ba mu dajeeloon ka ko doon lakk Namruud dafa dem di ko jot li ndigalul suñu borom naa ko allahu allah yàlla yàlla yàlla allah allah ragalal yàlla ragalal yàlla ci say àtte ci say fal yi ngay fal li ngay jël ci nit ñi di ko dundee mu ne ko yàlla mi ngay wax mooy kan mu ne ko yàlla boo ko xamut moo rey say maam yow mi moo la fi bàyyi mu ne mooy rey di dund di dekkal di dundal rey di dundal mu ne waaw moo woo ñaari nit ñi ñu dencoon ne xaaral ma wan xaaral moom mu wan Seydina Ibrahima ne ko moom itam yàlla la man na li yàlla man daal ne kenn ki rey leen ko fii ñëpp de ñëpp gis ñu daal di koy rey mu ne bàyyi leen kenn ki mu dem ñu bàyyi ko mu dem mu ne ana maa ngi nii ana wax yow amit Seydina Ibrahima ne ko allahu yati bi shamsi min al mashriq fati biha min al maghrib yàlla mooy jëlee jant bi penku bu ci suba bu ngoonee jant bi nekk penku sow su fekkee mën nga jëlee ko sow mu jëm penku bis ñu xool fa buhita alladi kafar mu yor ay lex benn am kook daa romb ay armel képp ne ñii ne la sim fii defe nga ne moos yàlla mi ñuy wax mën na ci ñoom dara boo leen wooyee duñ la dégg soo tàllalee duñ duñ tàllal yàlla yabalal ko nga ment mu ne gam mu nelaw bi mu yeewoo suñu borom yab la ci moom ne ko geste bi nga fi def xam nga ñaata minute la mu ne ko déedéet mën naa am ndax bi may forbët maa ngi fàttaliku yoor yoor laa nekkoon ndax jant bi fii mu nekk la nekkoon fii fii fii fii la fii la toll maa ngi ni yow muy bëgg a sow yàlla ne ko déedéet bal labista mi atam sa nelaw yi li muy gàtt gàtt téeméeri at la waaye xoolal muus mi nga yoroon ba xam mu xool mbuus a gis bu doon suñu jamono dañu naan muuraay ka moom ca defoon mel na meloon mu gis ndox mbuusu ndox moom yoroon mu mel na meloon mbaam mam wàccoon di dallu taxaw fa mu taxawoon di lekk la muy lekk te nelaw na téeméeri at yàlla ne ko nag nii mu ko defee ci sa jëmm ji nga nelaw téeméeri at su ëllëgee ña la jiitu woon ñi ñëw sa gannaaw ñépp dañ naan gam mooy leen pëkk pëkk ñu jóg su dee ay julit ñu ne ay waay yàlla bàyyi woon ñu suñu nelaw yi waay mi ngi ci mi ngi ci alxuraan am ñoo xam ne dañu naan yaa waylanaa man baasana min marqadina hada hada ma waad arrahman kon pas-pas dañu koy daas su xumaagee tudd naa asamaan ak suuf ak ndox meeg gàncax gi lépp ak nit ñi yàlla nag boobee mu bàkkoo ba léegi kenn sampum ndëm ndëndëm kenn feleku ko ba mu limee ba lim ba noppi daf ne hada xalqullaahi fa aroni maada xalaqa allazina min duni lii man maa ko bind dem leen andil ma ñi ngeen di wax lañ bind lu mu ma gis ko kenn du ko andi moo tax yar njaboot gi naka jëkk jamono da koo soxla woon waaye jamono gën na koo soxla daas pas-pas yi wut ay royukaay yi ko mat jamono yàgg na koo soxla waaye gën na koo soxla tey moo ne bokk yi ku gis géej gi kañ la nit tàmbalee napp jën te fu géej gi nekk nit ñaa ngi fay napp fa géej gi nekkut nit ñaa ngi napp di fa yóbbu jën yi bu dee sénégalais moom néew na sénégalais bi dul lekk jën ni ñu toll ci lim néew na ñu dul lekk jën bis bu set te yàllaa ko def ci géej gi bu jeexee fii it bañ ne jeex na it fekk yàlla day waajaat beneen tostam mu jékki-jékki waat na jàll bari lool loolu mat na sant yàlla yàlla ñuy wax ci alquran suratul mulk su ngeen gisee toor toor wala përëntaan wala ay Moussa Njuburi ñoom ñëpp ñu àndandoo def ab naax ci kaw nañ daan defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tiim ko ndax bañ ko bañ jant bi laal ko yàlla moo leen téye foofee ca kaw loolu ñuy tukk ci avion xam nañ ko nit képp su bëggoon dox ci kaw jaww ji kéemtaan lay doon waaye bi yàlla nammee ubbi addunaam si nit ñi dem fu nekk dikk daf ne dafa yor ci xeli nit ñi defar avion mu mel ni picc ni mu toll ci jëmmam nga xam ne buy wàcc boo taxawee ci kaw suuf si day mel ne suuf si day xar yàlla tàggatal nit jaww ji ba nit naaw ak moom ak i bagaasam di dox diggante dëkk dëkk pas-pas war naa yeesal su ñu gisee ne géej gi ab dégg képp bu xawee xóot nit ki mën a dox ak tànkam waaye léegi te du ko seen ndax nit ci kaw suuf lay taxaw di dox su ndox mi gënee xóot ñetti meetar du ko gis waaye yàlla nee na bi ma jëkk jàng léegi mooy awalam yaraw ila tayri fawqahum saafaatin wa yaqbilna maa yumsi maa yumsikuhunna illa rahma bi ci topp mooy wa min ayaatihi aljawaari fi lbaxar kal alaam da ngay gis ceeb bi ñëw Sénégal li ci ëpp ci ay bato lay ñëw bato fu mu jaar ci ndox mi bato bu mën a yoroo dundu Sénégal ci ceeb ak mboq ak la muy àndal ak i bagages yi ci des yëpp te kenn nit mënut a taxaw ci kaw ndox mi dem di wut doxi soxlaam yàllaa fa jaar loolu it pas-pas war na cee yeese waaye nag bi ci gën a foofu laa jeexale bi ci gën a yomb a jàpp te ku ko gëm doon ko dund xamal ne kanam la jëm ku ko xamagutoon na xam ne loolu mi ngi am mu wàññiku maa yakunu min najwa thalathatin alam tara anna allaha ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in 'alim ñaar waxuma ñaar waaye kenn ku nekk ci néegam di xalaat képp teema jóg dox joxi nangam yàlla dégg na ko xam na ko waxuma la ngeen ñaar ñuy gise di teg pexe waxuma la ngeen di ñett waxuma la ngeen di ñeent fu ñaar nekk moo leen ñetteel moom yàlla fu kenn nekk moo ko ñaareel du wuute dara fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñeenteel fu ñeent nekk moo leen juróomeel fu juróom nekk moo leen juróom benneel ak lu mbooloo ma bari bari dara ump ko te bu ëllëgee kenn ku nekk la mu defoon la wala mu wax ko dana ko taaj taaj ñépp ku nekk wax la mu defoon yal na nu yàlla déggloo am njàngaleem muy alquran moom mi ñuy wax pas-pas te musal ñu ci seytaane ak pakkam yar bi danañ ko dellusiwaat insha allah li tax ma ne pas-pas dañ koy daas ndax day xomaag ku ci kër këre woon tey ba am pàkk moo xam ñu may ko ko wala ñu jënd ko wala mu jënd ko su dee kër këre ba mu doon kër mu woote bisu sanc ba nit ñi yandu fa saa bu xëyatee war naa liggéey ci kër ga ndax ña fa yandu woon dem bàyyi nañ fa maleet bis bu xëyee balewut buubut rek jàngoro tàmbalee nuyoo si ni suuti lamp yi tàmbalee lakk muy changé lamp yi di changé ventilateur yi di pentiraat di defar ay toj-toj di defar ay pax yoo xam ne jinax yee ko gas di dindi ay lënd faw loxo da cay nekk yàlla na doon loxo ba ca war a nekk nag yàlla nag moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ne in kaana hada huwa alxaq min indika fa amtir alayna xijaata min alsamaai aw itina bi adabin alim li ngay wax su dee dëgg la ku wax ci yàlla dara adduna tukki su dee dëgg la neel yàlla na taw ay xal ñu xool yàlla ne déedéet ne leen yow sayidina yow sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam li feeg yaa ngi ci seen biir mbugalum yàlla du wàcc ci yéen ndax yàlla rus na la soo demee ba nekkatoo fi it su su fi amee ay kuréel yu néew yuy wax astaghfirullah yàlla dootu mbugal xeetu sayidina muhammad li feeg ay benn benn yow astaghfirullah mi ngi ci kaw suuf kon astaghfirullah al ali al azim alladi al xayu al qayum wa atubu ilay yàlla nanu yàlla jëggal la weesu li ci kanam yàlla nanu yàlla dimbale ba suñuy pas-pas di yees jëm ci moom képp dong daal yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri al muslimina amin